mbokk yéen ñu ñu bàyyi xel ci l'oreille du monde TV bi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal ci déglu bi ak topp bi ñu dikk ak yéen ci li fi gën a fës ci ay xibaar di ki nga xamante ni mooy Déthié Fall di mandataire coalition bi Yewwi Askan Wi moom ma ngay la bu baax li nga xamante ni amoon na ni ki ba nga xamante ni ki di leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko doon na fa def ab tournée ndax yi nag dañu fa daal di woon sànni ay lacrymogène fële ca Joal Fadiouth looloo tax nag Déthié Fall daal di yëkkati ay ni ki nga xamante ni mooy njiitu réewum président Macky Sall li muy def tegu ko fenn ndax li nga xamante ni mooy dox say soxla dem ak ak dik ab droit la bu nga xamanteni ni citoyen bu nek am nga ko te constitution bi di charte ndayu réew mi mom moñu ko may kon nak amuñu ben sañ-sañ ki di Ousmane Sonko di def ab tournem ñu di ko ko xagn wala bok ñuy yabal du doy ni li ñu yott jot yabal ci ay tak deex ba tax ñu difa indi li nga xamanteni mom moy ab trouble trouble bobé sax nak motax ki nga xamanteni moy Aliou Tine daal di joxoñ tuuma ki nga xamanteni ñoy tak deer yi ndax mom dafa xam li ni bu trouble am na fa rek ñom tak deer ñoo ko fa daal di andi ndax ñoom ñoo fa def seen convoi bu bëree lool waaye tam ñoom ñoo fa sànni ay lacrymogène te gisuñu dara loo xamante ne nii rek war na ko te itam amuñu woon benn sañ-sañ di arrêté li nga xamante ni mooy convoi bu Ousmane Sonko ndax xam nañ bu baax dayo bi mu am ba tax bu ko bu ñu ko arrêté rek trouble mën naa daal di am du samay kàddu Alioune Tine moo wax lu ni mel. ca la wàll moom njiitu réew mi président Macky Sall ma ngay doxal ab programme bu yees tuddee ko lii di seen APR seen APR nag programme la bu nga xamante ni trimestriel la maanaam ñetti weer yu nekk lay am leen ca jublu mooy gën a defaat am mobilisation boolewaat ñi nga xamante ni ñi ñoo bokk ca APR ca boobule programme bokk la ca lañu ca nas million ak genn wàll ci ay carte membre yoo xam ne dañ ko fas yéene defar ñoom waa APR ngir daal di koy jox seeni militant ñi nga xam ne ñu ngi nekk biir réew mi ak itam bitim réew bi le xibaax nag ñu ngi ko biral ci ab communiqué boo xamante ni jéggal nañ ko jébbal nañ ko groupe bi di IGFM te IGFM boobu sax la ñuy des ak émission bi di grand jury ba nga xamante ni mooy am ca RFM ca boobu la émission nag ki nga xamante ni nekkoon na fi ministre de l'enseignement supérieur di yi Teuw ñaan dafa daal di yëkkati ay kàddu di xamle ni kii di njiitu réew mi président Macky Sall dafa dafa war a def ab communiqué jàkkaarloo ak askan wi wax lu leer nañ ni du daal di defati li nga xamante ni mooy troisième candidature ndax moom ba ñu jot mais dënmalee li nga xam ne mooy 2019 moom njiitu réew mi waxoon na ni du defati ab candidature boobu mooy ay mandaam bu mujj léegi nag daf ko daal di war a leeral ndax fii ci Afrique rawatina Sénégal ñun dañoo am suñu culture bopp maanaam suñu aada ci aada boobu nag bokk na ci ni suñu kàddu dañu koy respecté loolu kàddu sax nañu gën a jox gëdd li nga xamante ni ni moom mooy bind moom Mary Teuw Niane ba tey ma ngay xam ne ni bu njiitu réew mi président Macky jàkkaarloo askan wi xam ne carrément ni du defaat ab troisième candidature dina gën a li nga xamante ni mooy xel yi waaye itam bu boobaa dinañ am possibilité wala li nga xamante ni mooy coalition benn bokk yaakaar daal di wut ab candidat bi nga xamante ni moo leen fas yéene wuutu niki élection présidentielle 2024 mbokk yi ñu fas yéene buur bi la jotaayu xibaar ak wàllum tàggat yaram daal di koy jëmee ci juróom-ñeenteelu journée bi nga xamante ni moo ñeel session de ligue bi nga xamante ni amoon na ni kii nag euh, démb. kooku de Barcelone ak Real Madrid moom daal di leen fay defub jàkkaarloo ci loolu nag ki nga xamante ni mooy Barcelone dafa daal di lajj ci kanamu adversaire bi gën a mag di Real Madrid moo ko door ñetti bal ci benn loolu nag tax ki nga xamante ni mooy Barça dafa daal di gën a wàcc bu baax ci ligue bi. bu mu fa jógee tamit Paris Saint-Germain door na benn bal ci dara ki nga xamante ni mooy Olympique de boobu boobule bii nag ki ko dugal mooy Neymar Junior looloo tax itam ki nga xam ne Olympique de Marseille moom dafa daal di gën a wàcc ba. nekk ca quatrième place ba te boobule wàll nag ki nga xam ne mooy Paris Saint-Germain moom mooy gën a toog ca place am di li occupé li nga xamante ni moom mooy leader. mbokk yi li lañ leen andiloon ci jotaayu xibaar ñu di leen jaajëfal te di leen waxagu leen fàtte abonné ci chaîne bi di l'oreille du monde TV